mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy dooree nag ak wàllum politique diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang dafa mel ni nag mbir mi jeexagul ginnaaw démb daan yi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko mu war a fay nag lu tollook ak ñaar téeméeri millions suñuy koppar kii di Mame Mbaye moom Ousmane Sonko nag soo moytul yoon dina ko topp ndaxte nag park bi ñoom nag dañuy wane ne daal kontaanuñu ci juge bi dogal bi nga xamante ni jël na ko niki démb moo tax nag procureur bi nag di sàkku ñu juge waat ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. moom nag si ay kàddum moom mi ngi xam xamle ne daal li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko def nag yoon da kaa war a toppaat muy nag saaga yi nga xamante ni teg na ko ci kaw Mame ñaa Niang ginnaaw diffamation bi jëwriñ gu ñu dénk wàllum tourisme bi di Mame Mbaye Niang ndam li nga xamante ni am na ko ni ko démb moom mi la tey jii si ajuma ji sax dafay def li nga xamante ni moo di ab conférence bu ñu sukkandikoo nag si ay xibaar yu ñu jotandi nee nañ nag parquet bi niki altine lay tullantiwaat mbir mi démb ci guddi avocat yu Ousmane Sonko ñom nak maire ba futt lañu ñu def ndaxte nak ci app communiqué bi nga xamanteni nak nag nañu ko ñilé ñi ngi ci ñaawlu bu baax baax anam yi nga xamanteni mom lañu atté sen client maître Ciré Clédor li ak fuk ak ñett yu mu àndal ne nañ réewum Sénégal dal dañu fi gantal doxine bi nga xamanteni mom la ñi di avocat yi di doxee ndaxte nak dañu gantal sen liggé bu baax baax maître Ciré Clédor lii bokk ci fukk ak ñett avocat yu Ousmane Sonko ñoom nag ñi ngi mer ba futtu ci dogal bi nga xamante ni juge jël na ko niki demb lii ci ñaawlu nag bokk na ci liñu leen tere nag def seen liggéey waaye tamit seen àq yelef bi nga xamante ni dañ leen ko gàntal niki demb ñoom nag ñi ngi seede ci communauté internationale ne fii ci Sénégal daal dañu gàntal liggéeyum avocat te loolee mën na indi njeexantal bu baax a baax ci seen nekkin leneen ci mbir moomee muy naka ki nga xamante ni moom moo yore kàddum gouvernement bu Sénégal di Abdou Karim Fofana moom milee am na laaj ki tontu yu doxoon digganteem ak TV5 Monde muy télévision France boobu li mu fa xam ne nag nee na daal ñoom li leen yitteeloon nekkul ne daal Ousmane Sonko dina mën a samp ndëndam am déet ci élection 2024 yi waaye naka naka la ñuy def ba yoon mën a def liggéeyam. te démb nag noonee la amee yoon def na liggéeyam ba ñu daan ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko wan ko ne ko daal li mu doon wax amul fenn Mame Mbaye Niang moom moo am dëgg. leneen loo xamante ni Abdou foofa Fofana wax na ko nee na daal pression bi nga xamante ni moom la politiciens yi di teg institution yu Sénégal loolee démb la dakk te itamit wane nañ ne réewum Sénégal loi mu ngi fi tëddee njaaxaanaay leneen si xibaar foofee si diwaanu Fatick ab ASP moom nag la ñu fa jàpp moom mi la nag lu ñu koy toppee mooy jaayam yamba moom a Diallo ñu ngi ko fekk nag ci quartier bi nga xamante ni moo di Daaru Salaam mu ànd nag ak ay xaritam bokk na si nag kii di AB Sow nekk ferrailleur ak tamit S nekk vigile ñoom ñi la nag fekk nañ ci ñoom lu tollook 500 grammes yamba jamono ji nag ginnaaw bi ñu leen dégloo tey jii lañ leen war a jébbal ki nga xamante ni moo di procureur bu Fatick. ca diwaanu Kolda lu yéeme lañ fa fekk ab waay la ñu jàpp mu ànd ak bopp néew moo milee ñu jàpp ne nag moo doon sulli ay néew ci sëg yi nga xamante ni ñoo nekk foofee ca diwaanu Gadapara bi ñu ko laajee nag nee na nag ay nit a ko yónni fay ko lu tollook fukki junni xibaaru bitim réew yi dañuy dem fa nga xamante ni nag moo di Afrique du Sud foofee nag dawkat bi nga xamante ni moom la ñu duppee Oscar Pistorius moom la nag niki démb da doon sàkku ngir nag mu amal liberté provisoire maanaam ab bàyyam négandiku ginnaaw bi ñu ko tëjee kaso atum 2017 waaye nag yoon daf ko gantal li nu mel lu tax nag. nee nañu lim bi nga xamante ni moom la war a tëdd kaso jeexagul moo tax nag yoon gantalal ko càkkuteef googee ci fàttali moom dawkat boobee dafa faatoon ab corom atum 2017 ba yoon daan ko fukki at ak ñetti kaso. moom dawkat bi nag atum 2012 moo nekkoon lafañ boo xamante ni dafa yoroon ay békkee te bokk ci jeux yi nga xamante ni amoon na 2012 moom lee ñu koy wooyee Blatter runner nekk na koo xamante ni ràññeeku na lool ci wàllum daw mi. ñu jeexalee ko ca diwaanu Israël foofee nag dafa mel ni waa Israël ak États-Unis jaaratuñu benn taal ndaxte nag projet de réforme bi nga xamante ni jëm na si wàllum loi bi nga xamante ni daal askan ñoo koy sàkku moom ki nga xamante ni mooy jëwrin gu njëkk gi di Benjamin ñaw mujj na nag ànd ak askan wi ngir nag càmbaraat li nga xamante ni moo di coppite googee ñu war a indi ci wàllum yoon foofu si diwaanu Israël waaye nag li nu mel dafa mel ni nag neexul ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa États-Unis ndaxte ki nga xamante ni moo di Joe Biden mbir mi da ko jaaxal lool lu mu bëgg nag mooy waa Israël teg mbir moomee si suufa xibaaru tàggat yaram yi dañuy dem ci diwaanu France foofee nag fédération bi dafa jël ab dogal dogal bi nag mooy sant arbitre yi bu kenn dagg ab match ngir nag may joueurs yi nga xamante ni ay jullit lañu ngir nañ ñu dog seen koor nee nañ nag bépp arbitre boo xamante ni def nga nu lu mel daañu teg ay daan ca kaw. fii si Sénégal jëwriñ gu ñu dénk wàllum tàggat yaram di Yankhoba Diattara dafa nag fal ki nga xamante ni moo ne monsieur Amadou Sarr mu nekk nag secrétaire général fédération sénégalaise bu basketball fal googee nag mu ngi am ginnaaw bi ñaari weer dong desee si falum président fédération sénégalaise bu basketball.